salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu mbokk yi yëpp affaire Abdou Malick sama maam sama yaay dafa ne sama baay daf ko wax ne ko moom dafa jëkk a gis mu demee àjjana bu njëkk moom Abdou Malick waaye nag moom gisoon na waaye moom maa lan gisu ko après loolu nag. waaye dafa gisoon nigérien mooy ñëwoon boobu noonu te siiw buur bi évité ko woon foofu la Abdul Malik dem mu demee mu gis fa baay mu ñibbisi ñun ñëpp demee après loolu nag sëriñ aadi moo demoon foofu nag sama maam gane la ko gan gi neex mu ko lenn rek laa lay ñaanal yàlla nga dajeeg suma sëriñ waaye loolu nag jaaxal leen ah nit ku weex am sëriñ kuy sëriñ na ñoom dañoo fooga ne moom foofu la affaire bi jeexee mu ne ko suma sëriñ mooy Cheikh Ibrahima nekk ci loolu nekk ci loolu sama maam moom doomu buur la waaye moom affaire sëriñ rek moo ko nekk mu déggee affaire sëriñ rek dina fa dem Serigne Aji bu ñëwee ba ñaanal leen loolu rek mu am ay at baay ñëw ñëw foofu Nigéria muy dem Okene nag dafa wax taalibe kan ñoom ñëpp Nigéria yëpp nag ma bëgg a gis ci diggantaan man maay kan Ibrahima ñëw leen Okene fekk euh, sama maam dem tàggu baayam boobu baayam mooy buur Ibrahima nit ñi daal dem wax buur bi ne ko ah sa doom bi ku muy indi nii dafay wax ak yàlla de te bu ñëwee na ko wax na ko na la folli na ko fal moom damay wax papaam nag ne ko damay dem jëli eh, sëriñ suma sëriñ na ma koy indi ci dëkk bi nag dafa contrôle loolu nag mu bañ maa leen ne ah wax dëgg yàlla man de damay dem nañ koy indi maa leen di dem nag mu am accident ci yoon dem wax papa bi ko oto maalam dafa am accident buur bi ci boppam moo joxe oto yónnee ko ko maalam continuer dem jëli baay teeru teeru baay bu muy ñëw nag buñ dajee baay bu muy ñëw bàyyi ne ko man duma dugg ci biir dëkk bi wala fokk man ci buur bi laa jaaree ci parce que boo demee ci dëkk bi fay kilifaam foofu mooy bunt bi àllam nag mu ngi tiit parce baayam nga buur yi rek baayam tamit dafa contrôler affaire bi maa leen di ñëw nag di indi baay ñi moo tax baay na ko déedéet waaye dañoo ñëw fekk buur baa ngi taxaw di teer si baay hmm. moom ci boppam xam naa teyoo ko sax ñëw teer si baay ñu ànd dem kër buur bi buur bi la sa waare ko jógee ñëw Kër Malick foofu lañ jëkk a dajee nag seen foofu la ma leen euh, bàyyi jëkk a dem ok su ma ñëw bu fi sax su ngi xale bi tuuti après loolu nag waaye ñëw amaala ñëw na ànd ak suma boobu suma yaay xale ñu ziyaara suma la après loolu nag continue ba bàyyi takk suma yaay sax Papa moo ko indi parce que dafa wax ne suma yaay yow comme que ko sukkal ci suuf suma yaay ma ne mu ngi tiit sax damaa la li lan la ne ko yow suma yaay nga nekk soxna bàyyi yow wàcc naa ci li ma nekkoon sa maa leen dafa bëgg bàyyi trop trop trop maa leen defal na bàyyi lu bëree bëree bëri dara ñuy wax fii di ko wax moom defalu ko am pour bu demee ñu koy wax moom yàlla ak bànn rek la doon def ñoom ci sallallahu mooy seen dem Paris boobu bàyyi opéré la daloon bàyyi toog na foofu or na fa sax hmm. ànd naa ak bàyyi dem Màkka ànd na fi yoon i yoon mu nekk seen diggante bàyyi de gërëm la wax dëgg yàlla képp ku bëgg bàyyi taalibe bàyyi di jàng diiwaan gis na ku ko bàyyi oo di ko ñaanal di ko ñaanal bu ñaanal doomu Ismaël ak loolu la waaw gannaaw loolu gannaaw waxtaan bi ndaje bi ak li yóbbu bàyyi ok ne mhm. dëkk Cheikh Abdoul Malick boo dajale moom booñ daje lan moo sookee relation famille familiale mooy famille mhm. entre euh, sa maam ak euh, sa waajur bu jigéen incha allah ak sa maman Cheikh Alisa parce que nee moom bàyyi moom moo ko euh, sa waa maam moo gàddu woon yaa baaxee ji baale ko ci ngan ga waaw mu dem fekkee kii bàyyi foo ah, seen kër la di mhm. Ismaïl lu mu ñu wax mu ne bu bàyyi di dugg si dañoo ñëw ne leen jigéen yi yëpp nañ dem nëbbatu ci benn jigéen génn parce que gan gi duy duy duy gis jigéen boobu su ma mu ngi doo xale su ma mu ne maa ngi taxaw foofu suñu bunt kër ma wax sama morom yi suma xarit yi ne leen buñ dem nañ leen taxaw fii lu tax góor yi dañoo gën bu fekkee ñi ne gan gii kiy wax ak yàlla ñun jigéen ñi bokkuñ ci bon nag ñu tim dootuñ julli mu ne mu wax xaritam mi loolu xaritam mi taxaw moom tamit mu taxaw mu ne bàyyi mu oto bi dafa indi bàyyi bàyyi taxaw rek seen ñaari bët yi ak mu tiit <coughs> fekk mu ngi téye benn biscuit mu ne mu ngi koy lekk bàyyi na ko dooma may ah. mu ne mu jox bàyyi biscuit bi ah papaam tiit yaayam tiit tey xale bi sonn mu ne foofu dëkk gis bàyyi waaye Baye suma maam jëloon suma yaay indil ko Baye Baye moo laaj nañ ko ko may te buñ koy laaj sax suma ñoom maam Abdou Malick suma maam Amina ñoom comprendre ñu woon affaire bi sax dañoo fooga ne Baye dafay laajte suma yaay pour mu indi ko fii mu jàng wala mu may ko doomam parce que Baye bu muy ñëw moom seen xale fi ñoo àndoon Cheikh Tidiane ñu ne waaw ñu ne ñoom loolu suma maam bu jigéen ñu ne moom loolu la fooga waaye moom Abdou Malick moom daf fooga ne dafay jàng si ko bàyyi laajee nag dama indi xale bi Abdou Malick dafa noppi jabaram dara mu wax bàyyi wax ci ñoom Cheikh Atik service yi nekk kan nekk njiraay te aw maa la nga bàyyi daf laa laaj dara nga bëgg a bañ dama ko bañu ñemewu maa sax damay xalaat kii dafa tuuti ba nag sama maam Abdou Malick ñoo ko sama maam ne ko ah suñu sëriñ boobu ne ne nañ indi baptiste de loo ci gis sama maam ne ko fekkoon sax dañ la wax nga dem rey de kenn ci sa doom nga ne sa sëriñ moo la ko wax boo ko commencé su ma man loolu duma la wallaay ah damaa xamul lu mu koy doyee di ko koy rey sax jox ko sama maam Amina ku dem sax doomam la ko mën a may la ko bëgg a may Cheikh Tidiane sama maam Abdou ko dama def istigfaar un million parce li nga wax nii lii daf ñoo ëpp doole nekk te moom sax soxna bàyyi lay dool si moom xamuñ ci daal bu muy ñëw nag sama maam moo ko indil moom moo indil sama yaay fii nii ci boppam ak benn paa bi ñëw Amadou Faye ak Abdou ñoom ñetti ñoo indi sama yaay fii nii ñoo foog ne dañ ko koy sedd rek ñu jël ko dugal ci daara ji wala may ko doon ñëwee nag ñu xamee ne soxna Baye la ci ba ñëw sukkal ko noonu foofu ak sama yaay bi dootoo sama doom sama yaay bi yow sax si bàyyi bi après loolu nag seen diggante dafa continué moom Abdou Malick taalibe mhm. waaw Abdou Malick boo ko bëggee wax affaire am na waxal taalibe taalibe noonu la mënoo ci wax leneen lu dul taalibe gannaaw bu bàyyeekoo expliqué nga li buur maanaam ñoom ay buur lañ mooy ñoom ay buur lañ balaa balaa nekk taalibe ñoom balaa ñoo nekk taalibe buur lañ Abdou Malick baayam moo doon maamam bu jigéen moo doon buur Cookina nag moo jox doomam ji muy bàyyi Abdou Malick buur moom dafa wàcc jox ko doomam mu continue gannaaw loolu Cheikh Abdou Malick moom nekk na buur Abdou Malick dafa dafa wax ne moom bëggul affaire buur sax moom bàyyi la bëgg parce que bàyyam gannaaw gi dañ ko wàccee buur bi génnee ko dëkk bi euh, waa dëkk bi ñoom ñi ne ñoom Abdou Malik lañ bëgg loolu seen buur mu ne leen moom loolu du affaire am moom bàyyi la bugg am na sëriñ am na bàyyi am na lépp loolu doy na sëkk barki waaye buñ génnee bàyyam nag xam nga ne foofu boo foolee buur dafay génn dëkk mm-hmm. Abdou Malick daal moo doon ñëw ci baay di ñaan baay pour daal nañ delloo baayam mhm. ñu dugg si ci dëkk parce que dañ ko aayal waaye de moo ko ñaanal mhm. waaw waaye ko ñaanal rek yàlla na yàlla nangu rek indi néewam parce que dugg si ba ba mu gaañoo ba dañ doog a indi néewam te loolu Abdou Malick kontaan bu ci interview bi di la yàlla